Amina moom moo war a xam ne kilifa la du nit ñi ñoo ko war a xam nañ bàyyi bu ñu waxee ñu naan soxor fii kenn soxoru fii ku ne boo mhm. xëyee di nga am loo yëngal def ko sa biir ku ne booy génn doo def taatu ne da ngay sol yére qu'on arrête de dire nit ñi bu ñu waxee ñu ne dañu soxore Amina pour lam logique la ñuy demee il faut ñu demee logique dëgg bu jotee même suñu njiitu réew bu nekkul ci dëgg nit ñaa ngi toog ci suuf même bu ñu mën a jot mënul jot ci moom di ko wax dëgg Amina na xoolaat boppam Amina na xoolaat boppam gis nga sago dafa baax nit chaque jour nga gis loo mën a faj doo ko faj da ngay bàyyi mu jàll boo buggee faj lépp doo dem am boo amee benn statut bii da ngay jëllale du ma yëg ci live du tudd turu jaara parce que man maa nekk sama sëy gis nga sëy tollu na foo xam ne boo mënatul a régler dara à huis yow ak sa jëkkër rek xamal ne. foofu sëy amatu fa wala du dem yàgg-yàgg dafay yàqu na xoolaat boppam bu baax Malick nag c'est un immature immature la ba ñëpp xam ko xale yi door a judd sax xam nañ ne Malick immature la de par ses de par ses bam fi njëkkee génn ne man mi li may yor milliard fii ñi ñaa ngi loo gis nga loo yor juge di ko tiitaroo ak di ko wane sa moroom ko saam di ko maye te kenn xamu ko la nga yor di ko tiitaroo nit yor na ko di ko may nit ñi te kenn mm-hmm. xamu ko Amina mm-hmm. ne ressaisiru Amina na ressaisiru loolu rek la ko nit ñi di wax Amina ne ressaisiru bu baax a baax a baax xoolaat boppam jigéen boo xasee ba sëy benn yoon sëy moom yàllaa koy tudd yàlla booy juddu dina ne kii dina sëy dix fois wala dina sëy vingt fois loolu ça n'engage kenn mais na ngay amee mot fees dell sa place toog gérer sa sëy loolu ci jigéen ci jigéen ki la mm-hmm. nañu bàyyi waaw ba euh, ay yaxam laa la laaj wala loolu fii ak jëkkër ju bon moo xawma jëkkër ju baax moo jëkkër ju bon moo gën far bu baax jëkkër ju bon gënu kenn jëkkër ju bon danga koy buddi sànni

kàddu yi rafet na Yamzo kàddu yi rafet na wax set na mami mami vraiment Yamzo kàddu yi set na rafet na. jërëjëf bu baax mën nga ma wàcce ma tapoté lire commentaire yi. waaw noonu la yéen yéen nekk ci suuf non yi rafet na yéen ñi nekk ci suuf tapoté leen rek continuer leen tapoté rek dina baax tapoté leen rek continuer leen tapoté oh. mami ñëwal maaleykum salaam mami. ñu leen di ci. doole ziar saboté leen écran bi. yokkal kàddu ñëpp bu baax a baax a baax. merci. Euh, am ni diggante Amina ak borom këram leçon la ci ñëpp. Mhm. leçon ci ñëpp mooy tey jii àddina dafa tërë bi te alal dina la lu nekk ci àddina alal. wallaay. ndax day dem ba moom sa dund gi. day dem ba danaan. loo fi waxul kenn waxu ko fi alal mooy def loolu alal kon nañ toogaat suñu bopp nañ toogaat suñu bopp wér wér wér te delloo lépp suñu borom te xam ne nit ki li la dal mun na dal sa morom am naa pote dafa métti li nga fekkee li nga def noonu soxna jaara ku ko defoon sa rakk wala def la ko yow moom dana la métti kon loolu def nit loolu nit loolu def bu ko def doomu aadama ndax dafa métti ci ku nekk ah, ci ñun. kum kum la daloon kum la daloon sañ mbokk jëkk wala sa deret jóg kon nañ bàyyi xel bu baax ci loolu te xam ne leçon la ci ñun ñëpp juge nga baal ma ci li may nar a waxaat ci tuut ci Sénégal fi mu toll nii fi mu toll nii. dëgg la. xol yi yàqu na moom ba pare. dëgg la. nañ jéem a baax. Mhm. ndax baax neex na de neex na loolu.

Dakar dafa surpeuplé Dakar. Mhm. ñaata militaire nga dem Kaolack nga dem Diourbel la leen génne indi doomu aadama waaye lekk naan tëdd amuluñu njëriñ ñun amuluñu njëriñ ñu dee ñu jël la gas sa suul la amul benn sens loolu. sama xalaat bu mhm. gàtt. ba pare nit ñi nañ baax ngir yàlla war a suuli lu waaye am nañ ko ko bàyyee. boo mu ne nëbbatu ci sutura nga nëbbatu ci sutura nga dund sa dund ci sutura Amina loolu moo la yàqal da nga ko def fàng dang rang te nit ñëpp bokk ñu yem xool yëpp bokk ñu yem na làqatu na làqatu li ngay dund mu nekk sa vie koy dimbale defal ci sutura koy dimbale defal ci sutura ngir yàlla war a soolee fii ñëpp a bëgg ndimbalaa ah, ñëpp a ko bëgg mais ci sutura dund lu neex ñëpp a ko bëgg mais ci sutura maam jaar bu sañoon nekk ak borom këram ak ay doomam nañ wax di waaye mhm. boo bëggee di ko métital ci internet bi ñëpp di gis ñëpp di vu doom yi di gis neexul ci xol. maa ngi mhm. jégal di jégal bu wér a wér ñëpp ñu bàyyi xel ci loolu ñu dawal yërmande suñ biir dawale sutura gi ah dimbalante yàlla tax gouvernement bi ngir yàlla war a suuli lii def mu ngir sénégalais yi jël leen militaire yi tas leen ci biir àddina bi ñu sécuriser doomu aadama yi ndax xol yàqu na ñu ngi jégalu ma ñu ngi jégalu baax a baax a jaar jaajëfati nekk na ci jàmm. Kadui yi am solo vraiment rafet na am solo lool madam ñëwal madam, madam ok mimi moom xam naa nalaw na mimi mimi daa mel ni nalaw na de mimi mi xaar ma yëgalaat ñeneen jël laa tapote len il faut ngeen dimbalé ma ngeen touti euh live bi mi ngi melni luy dag da ngay ni tapoté rek tapoté len da ngay ni tapoté mi ngi melni luy dag, quoi tapoté len rek day melni luy dag merci yokku len tapoté rek tapoté len rek mu juk tapoté len din dina bay tapoté len rek yeen ñi nekk ci suuf Thank you. quantas mensia é uma mitabi ya Salam alaikum juge. Nem andem. Salam. maa ngi jégal de sànq ba tey damay yëg yëg muy waa kii waa muy tëb. réseau bi la. réseau bi la kay ça va yéen a ngi ci jàmm. sant nañu. Bale mën naa ñëw wala mu teg sama parole ba ci kanam. mën nga ñëw parce que damay jël kii bi waaw d' accord. démb ba tey juge maa ngi lay déglu. dëgg la. mais dafa am euh, loo xamante ni man dama naan chaque jour yaay dafa war a moytu yenn détail hmm. boo demee ba jur doom moo xam màgg na moo xam màggul diggante boobu rek danga war a dindi lépp luy détail ci sa wet te jigéen dafa am bàmmeelu biir boo xamante ne moom rek moo ko moom ni muy ëmbee doomam ba mu judd te kenn du ko gis noonu la war a mën ëmbe ay kàddu ba kenn du ko gis hmm. say say tas du fi mbañ ñeenti jëkkër juróomi jëkkër du ci mbañ ndax man sëy naa sëyaat maa ngi fii ci réew mi Espagne am fi jëkkër mais tey sama jëkkër koo génnal huit huit ans mu takk la ci benn at nga bëgg koo jaxaseeg sa njaboot yow la neex yow la neex man sama jëkk ba mu bëggee taxaw jaxasama ak sama famille wala mu jaxasama ak sama njaboot dama taxaw seetluwaat xoolaat lan mooy problème bi ma toog daf ko bàmmeelu biir parce que na deewaale ak moom boo bëggee sa jëkkër bu la waxee yenn wax yi téye ko pour yow mhm. soo bëggee sa jëkkër ba mënoo koo bàyyi bu ñëwee dee ndax góor moom lu mu dégg ñëw nettali la luñ ko wax mu nettali la mën na sos sax pour ñëw nettali la pour bëgg lu la neex mais boo ko déggee denc ko mu def bàmmeelu biir deewaaleeg moom noonu la jigéen di jigéen buy sëy noonu la waral sëyee ak ci fu mu mënta nekk soo meree ba xam ne li nga mer mënoo koo wanaasu da ngay toog jël sa temps di ko réfléchir ba mu leer na ni wax jot na nga toog a wax lu la waaye nettali góor lu mu la nettali ba nga war koo waxtaane toogal jël sa tàn boo jëlee sa temps deux fois quatre fois rek di nga xam ni man lii war naa ko wax wala waruma koo wax wala wax ji dina dox ba ñëw ci yow nga xool la carafet nga génn ko su see bëgg nga sëy dama koo njëkkee ci sama bopp man sama jëkkër def na ma lu nepp jaxase ma ak samay doom yi nga xam ne juru leen def na lu nepp jaxase ma ak samay mbokk yi nga xamante ni ñun ñoo sama ay famille lañu jaxase ma ak samay xarit mais dama naan tekk bay tekk wan ma yoon ma jaar fa des fois nit dina wax wax ba jub si ci si nit daane doos maas nit dina wax ba yegg si ci ma xam ni li muy wax déggoon naa ko ma sànni ci samay borosal toog mais duma engagé kenn di woote nañ bàyyi xel ci loolu ñun jigéen nañ jël luñ suñu jëkkër yi wax ñu def ko bàmmeelu biir juge maa ngi jéggalu nag dama taxaw ci ligne bi baa bis bi ñëw na waa dara mën nga dem ba ci kanam encore ngoon mën nga ñëwaat. juge baal ma juge bi may def tapotage juge baal ma bi may def bi may tapoté xam naa si la def demande te tayuma ko dëgg la dëgg la xaar ma désolé ma profité di la jéggalu pour tout à l'heure parce que j'avais pas compris euh, débat bi yëpp maa ngi jéggalu maa ngi wàcc tapoté merci Merci la leon man nga suuf merci. Wow, ok laa leon next ñi nekk suuf tapote leen. La leon bi ci kaw ñëwul. laa leon. asalaamaaleykum. maaleykum salaam laa ah, leon. ngi bu baax di la ziar. ñu ngi lay fay de. Wa di wax ne ka vraiment yow yi ngay def day yé jigen ni. di yee ñun ñi nga xam ne ñoo suñu biir kër yi di sëy man su ma xëyee nu may njëkk a def mooy dama lay wër ba xam ndax yaa ngi live ma mën a dugg ma mën a toog déglu la. man nag man nag li ma ciy wax mooy que ne Amina allo yaa ngi may dégg. waaw bu baax waaw. waaw waaw ah, man nag li ciy wax mooy que ne Amina Amina Poté. ñu mel ni yéen yéen a ko war a dimbale parce que tey man li ma mm. jàpp mooy moom mënut a jàkkaarloo ak jëkkër ji wax ko mais day day ñëw wax ko ci mm. réseaux sociaux yi pour yéen ñu mel ni yéen ngeen mën a jox jëkkër ji conseil man jëkkër ji laa blâmé mën na nekk parce que ah. jigéen xelam matul waaw loolu la man man man de ma man loolu laa xalaat parce que tey moom mënu ko koo wax mais da koy ñëw jooytu pour nit ñi dimbale ko parce que sécurité am mm-hmm. jëkkër ji moo ko war a yor du mm-hmm. yoon que ne moom kële na leen dëgg la am nañ doom mais dafa am fu mu war a woo moom da ko war a woo waxoon ne ko lii ak li ak lii mais di ko bàyyi comme si que moom du ko wax dara muy ñëw ci kër gi moom bu ko fa fekku loolu wóorul parce que am hmm. naa côté tey bu demee bay crier di wax loolu ci ci ci internet bi ñëpp di dégg xam ne ne y' a problème day wax pour pour pour day wax pour pour sécurité am te man Amina Poté su ma amoon lu ma koy conseillé mooy que ne lu ma koy conseillé mooy na ñibbi si Sénégal toog jaboot du sëy dafa yor ay doom te doomam yi tey li ñuy dund di gis seen yaay yenn yi muy dund du leen neex même buñ ko ko wanul ñu ngi koy denc seen biir xol Malick nag moom dafa war a def le tout mu dimbale Amina Poté parce que jigéen boo ko takkee da koy yor yiir ko yor dëgg la mën nga ko yor mais yor yor am am ay defal naa ko lii yooyu du yor jigéen jigéen da nga koy sécuriser da nga koy euh, euh, da nga koy sécuriser teg ko ci code yoo xam ne ni du kenn du ko gis fenn wala di ko dégg ci réseaux sociaux yi chaque jour muy wax di wax loolu xana xamoo tey Amina Poté boo xoolee bu baax nga xam ne tey xelam ci boppam sax nekkul moom nekkul tey dund dund dund gu neex am am du dund am am du dund am na ñi nga xam ne yor nañ fi lu jeex di sëy seen biir kër yi mais lu raw Amina Poté li muy dund la la la ñuy dund te ñu ngi toog di ko wax mais Amina Poté boo gisee mu génn wax dafa soxla ndimbal ñu mel ni yéen yéen ko war a dimbale def nii moom am na solo lool lool lool lool lool da xam naa ne moom dina ko déglu te mu ngi koy dégg dina am ay nitam yu dégg dinañ ko war di ko wax nañ ñëpp si Sénégal toog man duma toog ba un bon jour un bon jour kooku ñëw débarqué si kër gi ray ko ay njabootam doogu ñooy perte du ma ko defal mm. njaboot bu sëy na ñëw toog fii ci kër waaji bu ko bëggee na ko jëndal Sénégal fii kër mu toog mu yor yir ko yor ko mais toog fii naan ay sama jabar pare waa dafa bari wax ay sama jabar comme tàngal ak yooyu yorul jigéen jigéen da nga koy sécuriser de un na ko mettre dans de bonnes conditions ba pare teg teg ko foo xam ne ni day bakkanam day day nekk ci jàmm ak salaam mais Amina Poté ku la maa ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla taxaw parce que tey bu demee ba toog benn jigéen buggul toog ci réseaux sociaux yi naan nii lañ may def wala nii neexul ci xol kooku bu demee ba wax ko rek da soxla ndimbal ci sénégalais mhm. man de ba man loolu laa gis maa ngi jégalu bu baax tamit ci kàddu yi bu fekkee li nga xam ne kii sama xol moo fees man maa leen di nuyu bu baax di leen ziar. di leen félicité encore une ci sa yow yow amu amuñu sa fay ñu ngi lay baax yal na la yàlla taxaw yàlla sàmm la yàlla yiir la. jërëjëf merci encore gars yi tuuti moo leen dese ngeen am un million tapotage dafa baax ci page bi. ndeysaan yéen a ngi gën a tapote tapote leen rek waa laareen defal demaan ma jël la tapote leen rek tuuti moo leen dese ngeen mat un million tapotage daa baax ci page bi quoi tapote leen rek ngeen partage léegi live bi def vingt quatre heures vingt quatre heures laa leen waxoon lu ma gëj a def kaa dëgg mooy tax ma def ko. mais di waaw non de sànq rey naa benn bàyyi yow yow ma xalaat da ngaa nalawi woon ñoom tutoo fi nekkoon bàyyi naa leen di ci guddi gi. waaw mais man maa leen man leen dëkk loolu man. man ay après damay delluwaat. waaw. Euh, surtout moo moo fi géroon instant bëgg naa la fi bàyyi mais dama xamul ndax di nga mën a pousser à bout comme juge benn une heure de temps bu dëgër gérer ubbi sa micro day métti ci yow quoi waaw wala ma puus ma tëj ñu ñëwaat parce que lii c'est sérieux débat bi ABS ñëwal ABS ñëwal asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam ABS Euh, depuis Dembo ma ngi deglu sen Mangi Degul Sente na ci Nachidougou, mais j'ai pas pu rentrer quoi. Oui, oui. Euh, ouais, Malik, euh, Malik Fall, euh, c'est c'est un frère. Euh, c'est un frère. Euh, yaayam yaayam yaayam sama sama yaay la. dëgg la mais malik ci boppam man gëj na ko dégg yag na malik 98 la ko gëj a dégg. ñëw na fi demb ci live bi. waaw démb ñëw na ci live bi bëggoon naa dugg pour wax ak moom parce que Malick 98 laa gëj a wax ak moom bu fekkee ne mu ngi may dégg. Euh, mi ngi lay dégg jàmm waaw maa ngi koy ñaan euh, maa ngi koy ñaan euh, mu mu woo ma comme ça ñu jokkoo man ak moom. waaw mm-hmm. loolu loolu moo mm-hmm. waaw loolu moo tax ma dugg ci live bi benn li ma ci bëgg a wax mooy nit ki soo jëlee doomu jàmbur nga yóbbu ko ci extérieur nga yóbbu ko pour mu ñëw nekk sa soxna nekk ak yow. da mm-hmm. ko war a mettre da nga ko war a def en sécurité en sécurité mm-hmm. mooy lan mënoo mm-hmm. jël nit ngeen bokk ngeen bokk benn dëkk bien vrai que kële am nañu ay doom donc euh, bokk nañ ba pare mais ami amina instant bi moom la nekkal mooy soxnam donc euh, man li ma koy ñaan fekkee mu ngi may déglu na jéem a toppatoo jabaram mu def ci lu war euh, Malick Malick man la Dra Dra man la Dra maay wax ak yow Dra Dra Camara Dra Camara maay wax yow. donc euh, soo ma déggee bu baax bëgg naa nga woo ma waxtaan parce que aussi euh, bëgguma nga nekk ci euh, nekk ak en conflit avec ta femme c'est pas une bonne chose. Mm-hmm. donc ve maa ngi lay ñaan nga woo comme ça ma waxtaan ak yow jox la xel aussi xel xel du doy parce que lu mu bon bon man ay ay ay frère la ñu ñoo maase presque man ak yow ñoo mm-hmm. maase donc euh, maa ngi lay ñaan nga woo ma ñu waxtaan parce que aussi euh, am na solo man la Dra bu fekkee ne fàtte nga Dra euh, mooy mooy jarbaatu jarbaatu Ibrahima Diop kan Caaroy mm-hmm. donc nga woo ma na lu la bëgg a wax Hmm. yéen tamit euh, maa ngi leen di gërëm di leen sant. Hmm. parce que aussi nit euh, nii rek la mënal mbokkam quoi parce que euh, hmm. li ngeen ciy wax yëpp nekkul parce que da ngeen di critiquer mais da ngeen di ko wut solution pour couple bi mun a jëm kanam. donc mun a ngeen ci bañ dugg sax di ci wax mais li ngeen ci wax am na ci solo trop parce que nit mënuñu ko bàyyi à l'écart moom rek ak jabaram muy def li ko neex il faut aussi nit ñi wax ci ku nekk jox ci sa xalaat donc comme ça ñu mën a nekkaat si jàmm. waaw ah, maa ngi leen di jër maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñëpp yéen ñi intervenir ci affaire yi ah, maa ngi leen di jaajëfal merci jërë ngeen jëf. nañ kàddu yi am solo. waaw. ok Saba Diop. Wos. Wës wala madame Diop ku disponible Wës wala madame Diop. waaw sis naa maa ngi ziar. waaw ziar wala ziar naka la nice. di rek yéen a ngi jege un million yi yéen a ngi jege un million yi tap tap tapate leen rek bu jegee un million rek dina baax. Wës ñëwal en fait xam naa en fait xam naa dama mën a wax na yi nii diggante ma yéeg affaire bis bi di ñëw ma woo waaw waaw waaw dara kon xam naa feeg ngoon rek boo fekkaatee ñu taal. mais mais mais maa ngay bu baax jërëjëf. a dëgg yàlla ndax moo nga nga fen depuis depuis démb mais. depuis démb rek maa ngi nu ma ngi gis nga taxawee vraiment euh, dëgg moo tax a jóg quoi vraiment man moom mosuma mosuma nga yàgg de si mais démb moom non dama sama xol dafa tooy teg bay Seydina bu ndax dëgg bi nga taxawee quoi vraiment vraiment kontaan naa trop ci merci. ok merci waay. jaajëf jaajëf. waatam wala jëf jël ñëwal. bon li gars yëpp di wax rek. mooy waxu dëgg bu doon far moo la fi taxaw. Hmm. am na say am di jàmm yu fi dugg nekk ci kaabe. mais danga nga hmm. wax ak ñoom si yar ak teggin xamal leen na ni dama gis benn victime boo xamante ni buñ ko jàppalewul xëy na àdduna mën na yàqu te tey xëy na bu amee si évacuation am si moom sax ba ambulance jël si ko xëy na li si dugg mu xaw a tàmpale mais ki mën na ray boppam parce que jigéen la joo xamante si nii billaay xam naa billaay billaay wallaay taalaay yii nii gars wax nii moom nekku si pour maam jaara make nit nga gis ko mu feeñ ci make bi sax nit ki di ko di ko filmer amut kon kooku noonu xamu jiini gars yi xam ni xam nga benn Bala Sarr jóge fële ne ñëw xam nga boole ko benn nit buy wax ni moom dafa am kàddu si média bi yàq addunaam nii jaara dafa may tout tànk jaara dafa may doom te jaara dafa am jëkkër te jëkkër ji dafa am mbañum rus man bu fekkente ni man awma mbañum rus sama jabar amul mbañum rus mais naa sóoraale gis yow mi nga xamante ni da nga am bañu rus say doom am bañu sa jabar am bañu rus bu ma la bu ma la canaliser comme comme comme sama bopp gis nañ waxante dëgg ci doomu yëpp yamuñu am na ñoo xamante si nii dañuy koos toog seen biir ne def tat mhm. koos ko foofu ba mu jeex duñu génn am na mhm. ñoo xamante nii si mbedd mi lañ ko yëge di tërëf mhm. gars yi di leen yëkkati ak di leen tëral comprendre kenn ku ne ak li ngay vivre mais Mame Diarra lii ñu ko dugal nii da ko xamu ziis xam ko billaahi wallaahi taala xam mais wax ak moom chaque instant sax di ko defal mais démb dafa sonnoon trop ci guddi yow Mame Diarra di dinaa làmb ci kanam ndax mi ngi tane yow Mame Diarra sonn de yaayam moo gën a sonn sax Mame Diarra billaahi wallaahi taala parce que yaayam day gor joo xamante ni non la yàlla xam day ne ziis man soo gisee am na yu bari yoo xam ne ma koy jéem a moytu suma yaay moo tax mais du suma jëmm du kenn suma hmm. yaay moom moo tax may moytu yu baree bari nit ki nag bu fekkente ni dafa nekk ak yaayam si ab dëkk te tey hmm. june sa doom sa nawle la nga jékki-jékki dégg ñu koy wax ay mbir yoo xamante ni la yàlla xam doy na mais lay naa na génn def li nga wax hmm. sa panel bii la war a ñëw jéggalu même bu jéggalul fa mu toogoon ba yàq maam jaara ba réew mi yëpp naan maam jaara maam jaara na fa toogaat xam ne hey man maa juum man lañ wax loo xamante ni avant may wax damaa waroon a def li tubaab da il faut reculer pour mieux sauter waroon naa arrière baakabaat xool bu baax a baax balaa may wax mais dañ ma wax rek ma joué sama xool génn wax dèjà Mame Diarra Cheikhna fàtte woon na ko xaw ma ndax déglu nga audio bi mu déet Cheikhna fàtte woon na Mame Diarra benn yoon la Mame Diarra masa make up daara Diarra euh, la masa make up te dafa dem këram make ko depuis boobaat si tey ba bi mu ko amee lee xaalis bi Sénat nekk si di wax tànki jàmm maam jaara déggante waatut ak Sénat gisante waatut ak Sénat keneen ku la wax lii dafa bëgg waxtaan bu neex. parce que man maa ngi en courant boo déggee ma limoon bi bi mu amee lee xaalis te barki dem la laay fii àdduna yëpp di ko dégg mu ne dinaa fay jëf jël ba may ko xam nga lu ma fayee ay saaga ndey. ay 40 vocal yo xamante si lu mu sama yaay ci bi wax nako ko sama papa ci bi lol da dama fayé mais dërëmu Mali joxuma di nek di vanté wu ci nit ñi di jéem wu tour tur nit ñi dama nga wuti sa tur sa bopp bro yow gor nga gor yalla nga da nga wara jité dama nga wuti tur ci sa bopp mais bu gis ben yaay booy boo xamante ni visibilité daf ko liggéey pendant pendant des années nga ñëw bëgg a victimiser wu si moom pour am tuur si moom tuur du la jariñ dara ay bàyyi nga jox keneen gi maa ngi déglu kàddu yi rafet na jëf jël kàddu yi rafet na Fatou saar ñëwal wala laaren faatu Sarr wala laaren salaamaaleykum maaleykum salaam ngi sant Fatou Sarr alhamdulilah xaw naa gëj a yéeg ci sa panel bi nag. dëgg la. fan yii yëpp dama xaw a dama amoon dese sama yaay moo wàññeeku woon. sigi sigi ndigal waay. sa wàll. sant rek. alhamdulilah man moom li ma ciy wax mooy boobu ba léegi maa ngi leen di déglu ba démb maa ngi lay maa ngi leen di déglu. mais man sama sama xalaat laay wax. sama xalaat moom Amina bi mu nekkee Sénégal wax dëgg yàlla nit ñi moom doo ñàkk baatu ginnaaw kenn dégg ko ci ay détails mais man pour man ci sama xalaat sama analyse boobu man fi mu dugg kooku moo nekkul saaram parce que fii kenn du bañ ku la weññil tey parce que mhm. suñu borom li mu dogal ci yow da koy dogal ci yow rek waaw parce que mhm. lépp lépp a gën dee mais genre nit bu mu tasanteel kooku du pour Amina Mm-hmm. ndax li ma naan liw bi liw bi ngelaw li la lii lépp jëkkër ji moo ko waral parce que am na nu mu doon demee Amina du yëg wax ji wala moom bu yëgee wax ji moom dina ko lijjanti ba nga xamante ne affaire yi du ñëw fii kenn du ko yëg parce que Amina léegi vioo mag da doon waaj xaroog da doon def lii ak ñun ñëpp yëg nañ loolu te pourtant loolu ñun mënoon nañ ko bañ a yëg Amina ñaata jëkkër la tàqalikool te pourtant ñun xamuñu cause bi lan moo tax première fois di wax mais jëkkër ji yal na ma yàlla baal ta jéggal ma man pour man man li ma analyser gis na Amina faa ko dem na Amina tamit ndeysaan moom mu naïf bàyyi liggéeyam Sénégal dem fekk ko foofu man de li koy wax mooy même bu munul génn ci lii parce que fii lépp a gëntee am na yoo xam boo ci nekkee tey bu xar woon tamit day am ñaari daan nit ñi kenn du ko ñaanal te boo demee yàlla mbugal la kon loolu yal nañ si yàlla musal. amiin jëkkër ba daal na la mën a protéger. protéger vrai sens bi moo protégé gentleman gentleman nekkul ne kat am naa lii am naa lii ñi am waxuñu dara waaw parce que Amina musul toog ci télé bi di vanté wu di def nii ak lépp lu munti nekk Amina nitu réseau la nitu dafa am dafa am visibilité kon moom il faut que ndeysaan ñoom bu ñu demee Europe suñu wéetee dañuy wéttaliku li rox di wax ñoom dañuy wét di wéttaliku ñoom il faut que ñuy toog génn ambiance mais kon bu ko benn góor mu ñëwee war koo mun a protéger kanam ak ginnaaw deful loolu di vanté wu gis nga Malick mm-hmm. bàyyiwul dara bu bàyyi woon kon Amina détails yi muy am nii du ko am mm-hmm. man de man de bu doon man bu doon man la wala muy sama sœur dama naan ko carrément ñëwa Sénégal sa jëkkër comme que moom am na ñaari fan ñetti fan un mois deux mois Amina bu mu nee ñëw foofu mu ñëw fa toog am fa benn un mois am demaat yoonam jëkkëram bu mu ñëwee mu munee ñëw vacances mu ñëw vacances ñun ñi di xaar suñu jëkkër yi ñoom gënuñu ñu mais fofu bu fa nekké problème lay am bu nekul problème mu jaaro bu suba benen problème lay amat man de wax fa deug yalla jigen mom surtout bo nekké fo xam amo yaay amo papa amo fa dara ba para yow do hamon ta yow li nga xamone senegal lolou nekul Europe koku ken munul fexé bam bay yaay domam ji ken munul fexé xol muñ rek lay am wala mom mu ñew senegal tok limuy def ci ginaaw mo xam fi bu ken kenn bañ ko la wéñal ay sey sunu borom lu mu dogal ci yow dogal nako ci yow mais daal man ngeen baal ma ak sama xalaat bu gàtt Amina moo waru woon dugg ti genre bi parce que genre bi moo dul genre am daal genre bi am naa li am naa li ñi am waxuñu dara bàyyi faal yaa ngi ci dëgg-dëgg bi yor lu nekk macha allah boo leen gisee doo leen ko foog wala boo leen ko gisee da ngay yaakaar ne 5000 francs moo nekk seen poche moom démb tenue bi mu sol xanaa man mi nekkul Europe sax xam naa ne tenue bi waa du tenue boo xamante ne tenue bu exceptionnel la. mais vante bi daal ak yooyu moom man moom su ma su ma nekkoon maay Amina na ñëw dugg ci panel bi baalu jaara ak te yàlla rek tax te xam ne nit du rey waaw léegi nag la vie continuer suy bàyyi jëkkëram foofu mu bàyyi ko ñëw continuer liggéeyam mais foofu moom bu fa nekkee moom lii la wax am na wala dee am na wala kaay lañ jël koor bi maara day taal te ngeen baal ma. non kàddu yi rafet ma si li ma si dolli tuuti rek dëggal waxam mooy. ñun duñ ay gardien maa ngi koy wax chaque jour gars yi di di inquiété liggéey liggéey boo munti gis baax na na la jox lu lew rek nga jox ko sa famille mais am na yenn yoo xamante si nii soo koy wax day dem ba mu yàgg maanaam day ndurul lenn quoi gis nga juge yàlla nañu yàlla may ñu ñëpp xéewal gu barkeel ak fu ñu ko jëlee mais bu mu doon loo xamante ni ay folklore lay doon di jéem a victime wu si pouvoir ñu pour ndax ñenn ñi pour am si ñoom dara comprendre nga fii Europe la ñu daje ñun ñëpp dañuy liggéey loo munti liggéey yàlla na barkeel mais ay am naa lii mën jënd seen nangam taan li am da ngeen di dem ba nangam taan du ngeen ko am faal fii koo saaga mën na laa saaga fii ku la dàq ñax la gën a demal port nga xool Dekker wala Baara Ñinde yi dañuy ñàq ba seen yére yeeg tuba yi tooy xep te pourtant ka leen di fay daanaka sax du niin kon war wërsëg yàlla moo koy joxe bu ñu ko yàlla joxee yàlla nañ ko bokk ak ñu ko war a bokkal mais wërsëg bu ñu ko bu ñu ko wax te ñëwagut yàlla na am ay milliards yéene naa ko ko barki Seydina Mohamed mais fii ñun ñëpp xam ñu ñëpp xamante ne sanu daalaanu ñoo fi bokk nekk saaga nit ñeeg vanté wu nit ñeeg Amina na déglu nit ñi mais nag may sa benn message est-ce que moom bu jénnee dem Sénégal dina duggaat US parce que US fii nii boo fi duggee ñu may la ni la temps bii nga fiy def temps boobu noonu nga def ko fi te yàlla dogal jénnoo boo fi duggee dootoo fi duggaat fii ak ten years na nit ñi bàyyi xel loolu timit kayitam sax jeex Amina bëggoon naa nga déglu ma démb waxoon naa la démb ni la pare naa pour doon sa pare naa pour doon sa nijaay parce que dama xam da nga néewi bàjjen néewi ndijaay moo tax lii la dal nii dal la mais incha allahu rabbi borom jàmm ak jamono borom noppee joxe dina la wallu ba nga xam li tax nga demoon sukk si ay tànkam mu boole la ak Cheikh Béthio Thioune dongo bi moo lay wax Amérique gii ma nekk amul kenn ku ma fi ñëw waaye ñëwu ma fi kenn li ko waral mooy borom jamono si kanam tuuti boo ma mayee ma dugg fi may liggéey wan la ni la man lii mooy suma liggéey te loolu sam papa moom laa fekk mu koy def muy entrepreneur soo waxee muy xas jëf-jël di ko saaga yow liggéey dof ngay liggéey boo si daanoo da ngay dee boo deewee da ngay perte yoroo nangam taan naa la jënd jënd sa baay su xamoon suma famille du ma woo sax di ma saaga. kon Bellingham attaqué man yëguma woon li xew noonu foofu Bellingham attaqué noonu. non déggoo li ma la xanaa. naa enregistré sa numéro léegi man bañuma nga teg lim ma wax pour nit ñi xam ko day ñaanal ku tedd ki ba ma tiit te sam papa du siggi xool nit sam papa depuis ba mu dee xale ba léegi. non jar na ko nag si non jar na nga jox sam papa sam papa si yoonu murit ba mu ñëwee di tàggu Serigne Saliou ni ko damay non billahi dama la ko jox keroog ba mu ñëwee di tàggu Serigne Saliou ni ko damay dem Màkka Serigne Saliou daf ne ko sëñ moor mu ni ko Mbàkke mu ni ko garaatu Mor Sall murit Sadex turandoo bu liggéey du ko dégg bis ni ko tey ñu la tuddee bu ko neexee ñu woowee ko Alaaji moor dangay dem mottali faratay suñu borom yi mais li nga am fooxee na lu bëree bëri Mor Sall Murid Sadia sam papa mooy chef de quartier Intecat lu mu ko waxut si àdduna amul su ma la envoyé audio yi naa ni sax soo xawee am kersa tuuti doo ko teg wala fal ku tedd ki wala fal suma yaay wala fal ku tedd ki wala suma yaay kan lay saaga man lay saaga di saaga suma papa di saaga suma yaay Ah, apa soo ma ko joxee loolu loolu dañ koy préparé ngoon su may génnaat. yow ah, yow yaa ngi ñu wax xoolal yow yaa ngi ma ameel xaalis loolu sax taxoon ñuy wax mais yow yaa ngi ñàkk ñëw ànd ak Sena mitai tey toog sa oto sa biir oto bi ngay wax ak man Sena ngi toog ma ne la abal ta ta la la mana abal nga dem ba mu yàgg ni man aw ma lu ma lekk. aw da ngay laaj waa Amérique mooy jabaram ji mooy mooy ex kim amal doom nii mooy Sena ki amal doom moy chena moo tax boo ma jele PV sisu man sa ragaluma PV Kawasiyam lo bëgg xam bo ma laaje non non mais mais ki jola la ay dàkkantal lu leer nañ. you know. sama grand jaar ngeen bëgg ko ray fini amna ka fu muy tollu sama grand. xam nga man du may live 24 quatre heures bu ma ko defee rek kala demb bo ma leen diggee ne dinaa yóbbu live bi 24 quatre heures mak sama jigen ñi ak yow sax sunu bokk ak ñeneen ak ñeneen maa ngi fexe ba mu mat 24 heures ma doog fi jóge te pourtant nalawuma noonu dama noppalu benn une heure de temps bàyyi ko ci gudd bi femme yi continuer après nataa ñëw am da parole maa ngi koy puus ni te tant que matul 24 heures yaakaar naa heure bi démb commencé guñ ku ma mën a fàttali démb ban heure nañ tàmbale ah, naa ko puus ba mu 24 heures démb yaa ngi tàmbali around ten eleven. ok nga tàmbalee quoi. naa ko ba vingt quatre heures. gën naa balaa ñoo àgg vingt quatre heures di ngeen yegg un million de Sambaay. dinaa am nag fu dem parce nalaw amatul dina am lu ma dóori. noppaluwaale ngoon ma ñëwaat mais fi tol toll nii grand. sutura waa kii nee na trésor fi ñu toll nii amul. ñu kenn du ko suturaal. jox naa la whatsapp bi loo am yónnee ma ko loo xam wax ma ci àdduna bi di dégg nekk si amérique bi gaañ di wulle di saaga ndañ nit ñu ndey amérique ay nit ñu sell ñoo fi nekk ñu baax nga généraliser ñëpp saaga seen ndey ñoom ñëpp sawaay ku am du nekk si dëkk bi di wër appartement bay bëgg a dee sa jabar taxaw ni appartement bi nga jël sax moom moo la ko fayal taxawaat ni appartement bi 4 millions nga siy fay amut fii benn appartement boo fiy fay lu 2 millions Sénégal amut come on man na gars yi down wàcc si tere bi xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay dañ fee ñëw pour wut yàlla nañu am bu ñu amee yàlla nañ dem senegal bokkook suñu famille ak képp ku suñu am di jàmm ak ku umpale woon sax ba jàppee ñu noonu tey xamooñu you know mais nekk fii di saaga nit ñi ndey Amina fi mu toll nii kenn xamatut moom lu muy nduru maa ngi jégalu bu wér ok ñëwal ñëwal waaw laaren ñëwal ça va juge naka ba ça va laaren sant maa ngi nuyu yéen ñëpp seen mhm. euh, thème bi laay rafetlu am na solo trop parce que mhm. boo gisee ma dugaat euh, am na lu dafa am lu may fàttelu quoi parce que loolu dama beaucoup d'histoire bi nga xamante ne ni euh, comme ni daal ni Amina ay doomam tu vois mhm. loolu man aussi dund naa ko mu nekk loo xamante ni jusqu'à présent góomu xol la ma def. wala loo fois des fois doo am sax koy confier sa sa sa problème parce que ak jamono nu mel. Mm-hmm. loolu dem na ba indi séparation mag sa mère du séparation comme du ma ko dégg yaay yaay la dama koy nemmeeku di ko woo lu ma am lu ma bokk ak moom. mais mu dund situation boo xamante ne métti na ma trop ba ci kanamu yàlla te mënuma ci dara mu nekk mu métti loo xamante ne ni tey boo amee ay doom yu mag ko man sama papa dafa teel a génn àdduna mu nekk xale sama yaay am benn jëkkëru Saint-Louisin mais da ngay xool après bon ñu baal ma ci kàddu bi kenn julli nuñ kay jappé leneen la dal ngay dund situation ya, bu metti ngay gis sa moy dund lu metti lo xamanté nga ci tek sa bëtt mo dem ba nek genre rancune ci sama xol dem ba majeur am um, expérience mënatuma supporter yenn ya, yi ma man ma man ma évader quoi génn nek sama bopp mais jusqu'à présent ba tay ba suba ba gannaaw suba les situations yi ñu leen koy mu koy mu daal ay ci ay ay ay ay ay ay ay xamut ay xamut yoo xam ne daal voilà rus naa di ko expliquer fii nii ci ñëpp di dégg sama vie mais mu nekk loo xam ne lu trop la nag je sais pas comment faire si mënoon naa am sa numéro ñu gën a mun a waxtaan ci loolu parce que lii ay ay di dund aussi euh, nekk na lu lu métti lu métti lu métti lu métti parce que yow boo boo dundoo ko rek doo mun a xam doo mun a xam métit bi quoi doo ko mun a xam surtout boo ay doom nekkoo fii nekkoo ak say doom nga nekk ak keneen ñu dégg seen yaay ci yeneen affaire yi tu Eh, doom ju nekk da ngay ñaan yàlla sa yaay nekk ci condition bu baax sa yaay nekk ci ci loxo yu wóor sa yaay nekk ci sécurité mais yow da ngay tëdd sax ngay xalaat es ce que duñ ma annoncé décès mère wala leneen tu vois mu nekk loo xamante ne mu lu métti trop franchement waaw ah, ata ne xaar ma dugg dëggal lii parce que lii ay réalité la yi nga xamante ne am na ñu koy dund Sénégal am na ñu koy dund man mii sama bopp mais doo xam foo koy jooytoo doo xam fo ngay dem doo xam koy expliqué quoi doo xam koy expliqué waaw mu métti trop nag franchement parler mu métti trop vraiment waaw moom mënoon am euh, je sais pas dax euh, mënoon am sa numéro parce que بين بندر نعم. سيباز بندر سيباز بليك دينار رفيق بندر مثال سيباز بي اوكي زيز نيجي انترسبت سيني لجاي كايا وي انترسبت سيني لجاي كايا في انيفرسيتي مانام دوغو في صح يومود في انيفرسيتي سو وا جلال جلال جلال جلال واتساب لا واتساب بو سنغال عندك بيتا واي jëlal am nga bi jëlal jëlal. waaye maa ngi dem. 77 520 06 18. 528. 520 06 18 WhatsApp la bu Sénégal. 77 520 06 18. 18. 520 06 18. d'accord jël naa ko. 77 500 merci Didi. 520 06 18. ok yaa ngi gis ah léegi li nga doon wax perte maa ngi doon mel ni. ñu ngi ñuy intercepté liggéeyukaay. wallaaw nice université la. mais dafa am salle bu mag bu nekkoon fii boo xam ne. dañ ko war a def fi mu toll nii ay bureau. macha allah macha allah. gis nga fii nga gis nii mooy li nga xam ne dañ ko war a dagg def ko ay bureau. MashaAllah. Yeah. Yeah, what's up, my bro? How you doing? Good morning. How are you? Good? Yeah, uh-huh. sir. Uh -huh. You have the kiss? waa ñëw ak tey la. waaw dama doon wax ni. dama doon wax gis nga ah. waaw ma seconde rek ma ma wax ak Baye Fall bi waaw Baye Fall fii moom macha allah macha allah Baye Fall. lii mooy suma liggéey. macha allah Baye Fall. gis nga lii benn terrain la woon si biir. kii bi mm-hmm. léegi dañ koy dagg ay office ok macha allah Baye Fall xayra ñëwal xayra waaw damaa ngi leen di nuyu naa leen ñu ngi leen di nuyu Jija li ma doon wax mooy man pour man fu mm-hmm. may njëkkee mooy Amina mm-hmm. dafa fóote su mu fóote mooy fu mu juumee gis nga problème bi soo xoolee problème boo xamante ne sax waroon na yegg si fii ndax soo déggee jaara wax dégg naa wax ñaari jigéen la yoo xamante ne moom ba mu ko yéegee en tant que jigéen moom mënoon nañu woo jaara ñu lijjanti problème ne ko ah jaar li ma dégg de ne euh, ndaw su américain bi wax ko ne moo moo am su fekkee yow la génnoon ci problème bi ñu waxtaane ko en tant que sénégalais ku ne xam na ne sénégalais dialogue mën na dialogue tey soo démb ak tey di fi sulleeku ci ay problème lañu dégg mënoon na ñàkk yow doo n'importe kii ci dëkk bi doo kii hmm. qui Malick man su ma ko hmm. xamee jëkkëram ñu bëri suñ ko xamee ba mu sëyeeg Amina la man ba ko bi di way sax xaw ko woon mais ba mu sëyeeg Amina sax si la turam gën a gën a gën a siiw kon yow mi nga xamante ni nitu média nga am na problème yoo xamante ni warul woon génn ci kaw noo ko mën a éviter dinaa ko éviter noonu mais man jour bi ma seetaanee sax mu def live am wax loolu man fi ma toog nee naa o oh, am naa warul woon def lii ndax tey jii sa vie ngay génnee say noon na ngi taxaw ndax àdduna du ñëpp la bëgg bul def live gis ay 4000 personnes wala ñaata nit di la seetaan nga foog ni ñëw ñëpp bëgg nañ la déedéet am na ñoo xamante ne dañuy xool rek defet wala fuñ la mën a jaar kon yow yaa ko waroon a mën a kiiwal sa bopp sàmm sa der personnalité bi nga amoon ak la nga amoon ak yow fi nga jaar yëpp nga ne yow jaar ci sëy ak lii kon yow bëri nga ay noonu bëri nga ñoo xamante ni say defet rek la ñuy toog di xaar man duma toog di live pour pour su fekkoon da doon live pour sénégalais yi yërëm la wala pour sénégalais yi dal tey jii xoolal li ci génn xoolal li ci génn même su fekkee dëgg la tey jii majeure partie bi ñëpp àndatuñoo ak yow wala ñoo ngi na ñoo ngi lay ñaawal wala tey jii yow sa jëkkër tamit la la la mu doon dund yëpp feeñ na donc nit da ngay suturaal sa bop du lu nek rek ngay meuna exposer sa bop wala ngay wax sa bop surtout ma yow nitu media nga du ne n'importe qui ci deug bi live bobu mo warul won am yoon mo warul won am yoon su amé ndax nit kat mom ay nan jëkkëram jaar na fii def na fii gis ngeen so demee bu dugg ci sey koku amon na viwam bu passé man damay jéem man imposer man sama présence té sama présence man kat jikko bi ak bi comme ni mu ko waxé non lay ànd ak yow ci fulla ci fayda ak ci personnalité lay ànd ak yow ci noonu amna lo loo nak ne limp lu ci mën ci defar dina ko defar en douce mais pas sur les réseaux gis nga lu exposé wu torop Amina pour sëyam dafa exposé wu woon torop torop torop man dama doon seetaan ay live am mais amna yo yoo su ko doon gis sax man damay tit ndax xam nga nuyu tit ñun sénégalais ñun ñëpp fu mu nekk nii ñun ñëpp sénégalais lañ olof lañuy ñuy làkk ñëpp ak ñuy déglu sénégalais da si am ñoo xamante ne dañuy jaar duñu bëgg lu dul nit ki am lu ko naqari wala yow dangay ngay ni sax yaa ngi def lu baax sekk nit moo ngi lay ñaawal moo ngi lay moo ngi lay jéem ut bunt bu mu lay ñaawalee kon boog live boobu dafay may nit mu julaale ci occasion ku si nekk génn de partout di wax la mu xamal sa jëkkër la mu la xamal fa nga jaar foo jaarul am na ñoo xamante ne sax dinañ dem ba nga xamante ne dinañ ci wax loo xamante ni sax bokkul ak problème bi ak dara kon man man man sama bopp man mi nga xamante ne maay nitu média ñëpp a xam ma man maa koy lijjanti sama bopp ama façon ama façon mooy lan woo jaara woo sama jëkkër ne ko ndaw si ndax ndaw si américaine la mais yow sénégalais nga comme ñun te buñ buñ doon dellu si ñooy bokk avion ba ñuy dellu kon dinañ la woo ñu waxtaane ko mais duñ ne ko ràjj ci internet bi tey soo xoolee li ci ëpp jaar kenn xamu ko yow Amina yow moom la ñu xam li ci ëpp ci ay wax si sa kaw la këppu kon nit nu mu mën a éviter loolu rek du yi am na problème yoo xamante ne nag dëgg la média mën na ko lijjanti mais am na problème yoo xamante ne jarul muy dem ci Adja ndax problème bi du problème mu dara ay yaama ne la ni la yaa yil sama audio jox ko woowal ndaw si mu ñëw toog ngeen waxtaane ko su fekkee moo ko doon def mu bàyyi ko la vie continue te nga gérer sa sëy jéem a gérer sa jëkkër ne ko nekk nii ak nii ak nii ak nii jéem ko dindi ci ñu bëri comme li nga ko waxee woon su fekkee mu ngi koy def mais pas lii ndax démb ba may seetaan ak la démb ba tey maa ngi lay suivre mais la nga ca dégg yëpp lañ ci dégg yëpp ak problème yi si souligné wu yëpp waroon lu mënoon mën a ñàkk la lu waxoon a mën a ñàkk la ndax loolu ak problème bi boolewu ci bokkuñu laalewuñu moom li ko indi li ko li indi problème bii live ba soo xoolee live ba ñun sénégalais nañuy bàyyi di exposé nit da ngay xam fa ngay waxee ndax àdduna nit dina la jege fekk sori na la nit dina la sori fekk euh, dina la sori fekk jege na la am na ñoo xamante ne ñoo ngi toog sa live di du xaar nga taal fekk say noonu la ñoo ngi jonkoon di la xool man mi nga xamante ne nag xam naa tuuti expérience ñu là, télé là gis te gis nga un dem rek son. nga ma live bi man avant problème bi, di am ba rek dama né oh Nous warul won def li, warul won ak man dama xaru ak man dama def li. des fois ñun sénégalais yi victimiser wu pour sénégalais yi ak ñun fekk nous sa bop ci pax ndax tay ñi di fi wax dem ba tey am na su ñoo xamante ne soo leen dégloo ñu waxee nga xam ni règlement de compte la wala ñoo ngi personnaliser kii bi te alors que du loolu du affaire bi demeewul noonu seen problème personnel la ñuy bëgg lijjanti xëy na amoon na. maanaam waaw xam nga loolu su amee boo xamee ne am nga ay noonu yaay moytu tooñ. yaay maytu foofu laa waxee dafa tooñ doomu jàmbur la tooñ doomu jàmbur la tooñ sosol ko fenal ko ne moo doon oh. jéem a nangu jëkkëram jël ay message am. ba doomu jàmbur bi xam nga nu jotaguma ko nag mais yàlla na yeewoo ak jàmm dafa def dafa nekk dans le coma ba ambulance jël si ko ñu mujjee ko téye si hôpital parce que xamul yi kër bi mi ngi daw lu bëri instant bi yàlla na yeewoo ak jàmm lu ma la wax hmm. juge xam fu ma waxee dama ni hmm. faute bi man Amina laa ko jox xam nga lu tax ma jox ko ko ndax hmm. moom mooy nitu média live boobu boo lan warul woon am waroon na ndax olof lay làkk olof ñu japonais ñu chinois ñu lenn sénégalais lu ne mën nañ koo en tant que ak la woo dinaa la woo ñu ne ko euh, jànk su dee lii nga génn ci ba mais du woon wax boo xamante ne dañ ko naan tay ci kaw imaginer tay ji yàlla na jug ak jàmm jaara moomu conscience tranquille xaadi may ma une minute rek gis naa sa demande bi. Mhm. du am du conscience tranquille du am conscience tranquille xam nga lu tax du am conscience tranquille parce que dinañ mm. ne live ba moo ko waral. Mhm. dëgg la. mama kontaan nañ ci yow. Sira ñëwal. yaa yaa Sira. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. nuyu naa leen ñëpp ñu nekk si live bi. ñu ngi lay fay. depuis démb maa ngi follow live bi live bi li ngeen fi wax yëpp a am sant. pourtant démb yéegal naa la sax xam naa après. yaa suma réseau bi moo baaxul kon doon daw. Mm-hmm. man si maam jaara man si maam jaara laa bëgg a wax. Mm-hmm. waaw léegi moom. affaire bi fu mu toll nii fu mu nekk nii xanaa ñu ñaanal maam jaara moom mu yeewoo ak jaama mu mun a delluwaat si activité am. amiin ah ñu ñaanal ko rek. yaa ñu ñaanal ko because fu mu nekk nii fu yëf yi nii maa ngi doon déglu keneen ki Baye Fall bi because problème bi problème bi ak Malick maa ngi doon topp kaa boobu noonu tamit dama ko dee fulu hmm. waaye soo ko seetloo lu lu lu Baye Fall bi waxoon yëpp si Malick bii nii yëpp ñëw na. fu nekk ni nit ñi mu ngay doog a gom ne lu Baye Fall bi doon wax xam nga. kon lu ko olof di waxee ku ñëw tufli rek nga tooy. Baye Fall ban kii jëf jël. waaw ngoog jëf jël xaw na lii yëpp si si Malick bi waaye comme xam naa affaire bi dafa tool woon foo xam ne. Amina du mun a understand fu jëf le jëf jël di waxe ah. waaw lépp eh, ñëw eh, na fu nekk na tapote wu leen de yéen a ngi fi mille personnes mais tapote wu leen yéen tamit maam jaara mooy victime bi soo na ñaanal maam jaara moom mu eew ak jaama mu delluwaat si activité am bi mm-hmm. démb sonnoon na gis nga léegi na ñaanal yal na maam jaara eew ak jaama parce que disaabut lii nii mu ngi si liggéeyam bi xam nga ñu fentel wax ndeysaan leer nga wax baax na jërë ngeen jëf man loolu laa amoon pour wax waaye jërë ngeen jëf dégg nañ la kontaan nañ ci yow merci kontaan nañ ci yow jaajëf loolu la man gàtt na gaaw na wax na xalaatam loolu mooy argument wam moom ye pourtant wax na dëgg de lii lépp waxoon naa ko quoi mais nag boobu gars yi mënuñu woon na gëm parce que ay Mm. ay ñoom Adamo consort googu dañ ko waxoon ni man lii sawaay takk Amina mooma metti xam nga rek médias ko si noo xamante si nii ñu bari dégluwuñ moon mais man moom samay wax jalu muus la da nga koy bañ a jeqi rek sa xel du teey waaye bis boo ko jeexee sa xel teey bat sëñ Bamba nañ seetaan rek nañ dem ba si kanam dëgg dina gën a feeñ moo tax démb bi nga ma jëlee ma xaw a saalit wante wu def vidéo wane suma bopp mais man sax melu ma noonu par sëñ Touba bëgguma kenn ku am gàcca bëgguma ko mais trop c'est trop trop c'est trop maam jaara hmm. yàlla na ko yàlla yëkkati ak jàmm mais lii nii lu baree bari mën na ko see fekk parce que nit nit kese la ah na ñaan mu ak jàmm de sëñ bi ma ne ko na ñaan euh, suus ñu lay nuyu di la gërëm di la sant yow yaay suñu càmme merci <coughs> waaw yaay suñu càmmañ wax dëgg yàlla yow moom euh, kenn du weerante ne jigéen ñi nga fi nekkal donte ne góor yi tamit suñu leen tooñee da nga génn wax si waaye ñun moom wax dëgg yàlla amuñu sa fay di la gërëm di la sant euh, sëñ bi Baye Fall bi yow moom amul dara loo fi wax nit ñi jaru ko sax parce que nit ki am na yoo xamante ne munu ko fen loolu mënut a nekk maa ngi jéggalu si kàddu gi ki la gis ku la gis euh, première fois seen seen problème bi mu gis sa kanam gis ni ngay waxee xam na ne yaa nekk ci dëkk waaye nit ñi nag dañuy dof doflu si ñu ko sañ a doon donte ne du ñëpp gis nga euh, waa jii waa jii man duma ko tuddee sax Malick naar booy booy booy naar laa koy tuddee parce que Malick sax mérité wu tur bi nañ waxante dëgg gis nga kii keroog bi muy ñëw si Amina Poté jógee euh, fi États-Unis di ñëw Allemagne di ñëw déggal maa ngi naan Allemagne man Allemagne laa nekk di ñëw Sénégal ni mu doxalee wallaahi ku nite du ko doxalee ku baaxit di ko doxalee fii may nañ fi jigéen lu ne lu ne may nañ ko fi jigéen mm-hmm. ba man ma man mii di wax ak yow lu ne may nañ ko fi jigéen waaye doo ko fësal comme nii te kii Amina Poté nañ waxante dëgg daa passé loolu loolu xale yee ko moom Amina Poté sëy nga sëyati sëy nga ti sëyati nga yàlla di weddi donte ne wax dëgg yàlla kenn du wax ne ku bon la ku baax la waaye dafa passé li ko Malick Naal defar noonu woote télé yi di wax waxi mag mu daanu si sareet lim def noonu jabar Youssou Ndour ko def sañu te Youssou Ndour ko mbindaane bi Youssou Ndour ba moo ëpp Malick Naar mii mbindaan bi moo ko mën a fay mbindaane bi Youssou Ndour moo mën a fay Amina Poté nañ waxante dëgg sama càmmee ndax ndax ndax Aïda Coulibaly dina dina def lii ndax jabari Pape Diouf def na li Amina Poté def kenn sañul lu Amina Poté nii sañ nii gis nga nit ki sa jikko jikko du réer mu gis nga jikko jam amee moom Sénégal amee ko sa télé ba ñu bàyyi ko muy def lu ko neex nañ waxante dëgg man na ko ko bëgg laa man ñëw bu mu ñëw sax dama koy ñëw kon bañu ma ko waaye gi gis na nit ñi soo waxee dëgg si nit ñu ne da nga koo bañ wala da nga koo iñaane fii kenn amul fi kenn lu muy iñaane kenn mu ngi lekk ni ñaa ngi lekk mu ngi solu nit ñaa ngi solu mu ngi takk or nit ñaa ngi takk or comprendre ngeen lim nekkee la war a bàyyi yow sëñ amoo dara loo fi nit ñi amoo dara loo fi lay amoo dara loo li nga fi waxoon lépp a ñëw si suñ kanam nii mu mel ni télévision bu ñu tegal wala film bu ñu tegal. Mm-hmm. te keroog ku gisoon li ngay waxee xam na ne yaa nekk si parce que nit ki nit ki suy wax si kanamam nga koy xool ñun loolu dañ koo xam dangay xool kanamam xam ne kii day fen nga xool mm-hmm. kanamam xam ne kii day wax dëgg. ñëpp ne eh, ne yow da nga koo añaanee man fii man dama daan toog ma naan sama xarit di ne xam ngeen ne waa jii wax na dëgg te xaw ma ne leen xam ngeen ne waa jii nii billahi wallahi li mu wax lépp dëgg la ma ne leen sañ naa koy waat anama tey teguñ si kii eh, problème ñëw ñu tegaat si ay kii te problème ñëw problème si kaw problème problème si kaw problème Malick naa mooy kan bu yëg nit ñi bañ koo wàcc bañ ñoo mhm. wàcc nañu may suñu jàmm waay ñu mm-hmm. xam di ko tiitaroo am nañu ko am ñu ko ëpp lu ëpp nit ñi am nañ ko toog fi kenn xamalul leen ku leen gis soo soo yëkkatee sarax sax sa xel mi looy looy xalaat jox ko kii te kooku moo la ëppale moo la mën a jënd mm-hmm. tuis koo fi mës a gis mu nekk euh, milliardaire wala millionnaire toog naan man am naa lii kenn sañu ko kenn du ko def kenn du ko def Ahmed Khalifa Niass ma la jabaram yi mos ngaa gis soxnaam yi kenn toog si naan lii la ma suma jëkkër wala lii la suma jëkkër am amul ana Cheikh Omar li amoon mos ngaa gis soxnaam toog ne lii la ma defal non yow yow yow mën nga ko wax sa peut-être ak waaye ni nga koy waxee ak ak ak ak ak fi nga koy waxee waaye toog euh, bàgg jamaa bi maa la ko andil euh, lii sama jëkkër nii jëkkër ji na waaw man dootuma ñàkk feeg balaa maa dee moom mooy kan yàllaa ko bind am nañu ko ëppoon alal tey tey balaa ñoo dee luñ jëndee suukar suukar seen café sax yoruñu ko. Amina Poté moo bindoo nii moom day wax rek. man day wax man ba man su ma toogee man kenn damay rus ma ne kii amul ay xarit yu baax peut-être que amul ay mbokk. peut-être lu yaayam dund léegoo léeg ma yaram ko mën a xëy na bu yaayam doon dund yenn du ci dugg yenn bétis yi du ko wax ah yow nooy defee li nga def ba pare nekk sa bétis ba pare nit ñi yëpp xam nañ ne yow nekkuloo si jàmm nga toog fee démb nga ne da ngay live doomi jàmbu tëdd hôpital pour lan jigéen moom moo hmm. def moromu jigéenam suñu gis nga man man góor léegoo léeg man man moom man moom man moom man moom luy sama jikko man yaram góor du ma góor defuma ko du ma koy def lu bëri waaye man jigéen sama moromi jigéen man duma ko teg lu ko naqari xalaatuma ko xalaatuma ko Malina moo war a may nit ñi jàmm est ce que la mu wax amee naa peut-être sa ndaw sa ne ndaw sa moo ko wax ne ko moo ko jox ay vocal ne euh, ndaw si feebar démb moom la est ce que dëgg la est ce que ñëw di ko layalaat def ay bétisam ñëw di ko layal di ko fenal bañ ko wax dëgg te man eh, leen ànduma si démb sa démb ba tey man sa panel bi man si laa fanaan waaye damaa nelaw ma yeewaat eh, taalaat kii ko man loolu lay def man léegoo léegi. waaw da nga fanaan. waa si lay fanaan wax dëgg yàlla damay yeewu rek gis téléphone bi daanu fee wala mu fay ma taalaat démb maa ngi dégg soxna soo xam ne donte ne dama ko respect bëgguma tudd turam. comprendre nga dugg fi wax eh, Malick naa taxaw fee di ko saaga man dugg naa live boo xam ne Malick naa da doon saaga soxna si. muy fa Hélène Gaye moomu di ko saaga di ko ñaaw mom su deme waxtaan ak nit mu ne ko Amina suma dom la dénk na la ko waxtaanal ak malik nar ñu waxtaan ba juba waxtaan wa su fekkee ne deug do nga ko lal waroon na sa bolé soxna su su teud su hôpital ba. su fekkee sa hôpital ba sa mu wo yaayam bolé ko ci soxna si yaayam ne ko indi na fi problème de dembu ci guddi soxna ci xalam mana dal. waaye def lu loolu ay xaaju lolu indi na fi problème ñom ñoom ñett ana jëf jël ni nek état sene elen gay nek état sene lu tax bimu mu malina waxut ko ne ko fayal xaalis si jëf jël bi. jëf jël xaalis boobu sa amul soxla am na mbokk yu sa am soxla wala mu am dëkkandoor yu sa am soxla te bàyyi fan la ni ma ko gisee nii day dimbale nii ñi te yàlla tax te du ko wane du wanewu du jël ay aro euh, di ko maye di wanewu xaw ma ko de wallaahi xaw ma ko te su dégg mayu xam na ne xaw ma ko waaye su soo déggee ni mooy waxee nga gis ko xam nga ne du façon nit boobu kon na ko fay alalam lépp too faytoo dëkk ba ba moo bëgg a tas kat sama maam mu ne dëkk ba ba moo bëgg a tas euh, buur ba ñëw di atta lu xew ñu ne ñii dee dañuy leb te bañ a fay mu ne too faytoo li koy fay daal mooy lan kay bi mu demee waroon naa mën a wax Malick naa ne ko comme su waxee dana dégg su waxee Amina Poté dana dégg te am nañ ko billionnaire lañ ah billionaire buy uti luwaas te am waroon na ko wax ne ko waroon na ko wax ne fayal jëf jël xaalisam ba mu fay ko si saasi loolu mooy góor ay dox tànk jàmm day mat suus ndax du dëgg. Mm-hmm. dox tànk jàmm day mat waaye nooy doxee côté bi bàyyi côté bi def ko kumba am ndey kumba amul ndey. du dëgg man na mosuma gis ko am billion ak wala ay million di dëkk si pukus boo xamante ne soo laalee sa sa soo tàllalee sa loxo sa loxo ba yegg sa bunt ba man mosuma ko gis man de Allemagne fii ñu ma fi gis ñu am lu dul jeex dëkkuñu sa façon ngi kii yooyu nekkuñ di yeenu seen bagage bi di wër waas Amina Poté hôtel bi ko Malick naa daru noonu rek amul lu mu fa waxut ñaata nit ñooy dem Dubaï di dal si hôtel di fay loolu loolu chaque jour ñaata nit ñooy dem China di dal si hôtel nit ñooy ñëw Allemagne fii ah gi di dal si yu bakkane yi di fay loolu loolu suuf mm-hmm. mm-hmm. xam nga si dara yow mii def nga ko defati ko mm-hmm. dafa tax nga toog di ko di ko wanewu naan fi lii lañ maa fayal ak lii lañ ma ne jëf ak wax bokkuñ ànduñu suma maam moo daan wax ne koo dégg muy mbelelel mbelelel mbelelel di jëfkat jëfkat du wax nañ xool si Youssou Ndour ma la ndax wakkan la du wax te Amina Poté mais àq Kouthia daf koo dal ndax man Kouthia du ko farle dafa tooñ waaye gis nga nit ki dafa am yoo xam ne bu la ko defalee suus da nga koy jéggal te yàlla tax am na am na fu mu la dugal wala am na lu mu la defal lay ak hmm. am dara lu mu war a mën a def assis lu ko loo xam ne Aziz def na ko ko mu naqari ko muy fayu waru toon a am moom hmm. it lii ku ca waru ko def dara lu ko métti dafa war a toog jooy sëlmu baal ko ñaanal ko woo ko ne ko kaay yaay sama xarit nañ waxtaan yedd ko su fekkee ne Kouthia la mu wax Amina Poté mu ñaaw wax na ko Viviane wax na ko wax na ko buuba euh, buubandu ñooñu dañ ko yóbbu dañ ko yóbbu koon parce que la fañ jaare Kouthia loolu lañ rus ndax nit ñi nit ñi nit ñi tey ñoom bu ñu yóbbuwoon tey Kouthia ko dañuy wax ne ah ñii de lu leen Kouthia liggéeyal te fekk muy dëgg nit ki du ñàkkaa juum fii ku nekkay juum waaye Kouthia jum si côté rek mu dem di ko toroxal ba kii Kouthia tëdd si hôpital tay yëpp ñu ngi koy wane mu ngi si lale hôpital loolu yëpp gàcce am na ñoo xam ne gàcce jigul le gis nga ñoom ñii lu leen jig nga umi naam yaa ma fàttali affaire Kouthia gis nga bu ma noppaloo ba pare ngoon mhm. affaire de Kouthia sax dama ko koy chargé baax na <laughs> kii baax tax nit ñi di la campagne bi ma ko jëlee pour pour dara de liggéey nga xam ne lii lii dal moom ko yóbbee dëkku gi nga nekkee ak yoon bi nga ak ni tegee si yoon xooloo si ku la bëgg xooloo si ku la mere xooloo si ay vie looloo tax nit ñi topp la très bien waaw waaw jërëjëf xam nga ne lii daal Kouthia dañuy fàtte de man yéen a may fàttali mais moo ko yóbbee Kouthia xam nga man du may suivre télé Kouthia nga feebar ba taay yëpp ngi hôpital gàcce la mais ah Kouthia eh, moo eh, ko génne ay dafa dafa am nit ñoo xam ne gàcce jigul leen boo leen tegee ay gàcce xoolal ndaw si démb daanu feebar Amina mooy kan ba ñëw ki dem bi États-Unis fekk ndaw sa yàgg fa am fa falam fa am nekk di liggéey nekk si jàmm mu ñëw di di di di di di bëgg a yàq fam si Malick Naar mi ki nga xam ne kenn bëggut ko man de wax dëgg yàlla bëgguma ko. kenn bëggu ko de ñi fi dugg témoigné ñëpp amul kenn ku ànd ak moom ñëpp ko bañ ma ne dafa waroon a yóbbu kii hôpital ñu seen ndax. ñëpp ko ko bañ ndax problème wala. kii daa am problème yi bopp Malick Naar wéerut ñi fi dugg a ko bañ laa la man instant yi combat bi nekkatul combat démb sax de maa ko jël sérieux combat bi day continuer. keroog man keroog damaa rus bu bu ko di wax na ko fayal xaalis